mu nekk ku jege lool xalifa général des mourides Mountakha Kane nag mësula dugg waaye itam mësula jéem a wax lu jëm ci wàllum politique jamono ji nag mu daal di fas yéene suub ab loxoom ci li nga xam ne moo jëm ci géew politique gi fas yéene jàppale ki nga xam moo fi nekk njiitu réew mi di président Macky Sall waaye itam fas yéene koo falaat ci jagante njiitam réew mi ki atum 2019 ci premier tour bi mébét mi mu li ko sabab mooy jàppale président de la république Macky Sall lu taalibe def ci kër gi mi ngi koy def man nag bu fekkee man gor laa te ma ku dul Cheikh Mountakha te ñii fi nekk yu réew mi jox ko seen bopp. ma sax lu mu leen di sant ñoom ñooy gëstu lépp luñ xam ni sëriñ bi bëgg na ko ñu def ko. kon bu ma nee gor tey taalibi mun Mountakha war naa jóg jàppale ko ndax lii muy defal sama sang bii muy Cheikh Mountakha. mu doon def ndaje mi nga xam ne ni ci la doon duggee ci politique waaye itam doon janowaale ak taskatu xibaar yi moom mi nga xam ne moom moo yor projet bi ñu doon wax ci réew bu Sénégal une famille un nag jàpp ne bilan bi nga xam ne njiitu réew mi def na ko war naa tax képp Sénégal yi daal di jëlaat seeni i kàddu daal di koy joxaat waaye nag dama ci bëgg a waslu sama àq loolu dong ma ci dugal waaye bu dee réew mi moom na taalibe yi seen xel dal ab taalibe la gëm Sëñ Tuubaa la Macky Sall lépp loo xam ni taalibe ngi koy def mi ngi koy def ci suuf buñ ko xamul nag kenn du ko wax ci kaw man dinaa ko wax ci kaw ba ci diaspora bi fépp fu ma xam ni taalibe nekk na fa te ñu war a mën a jàppale président de la pour mu am ndam dinaa ko def Mountakha Kane nag fas yéene dugg ci biir réew bu senegal ak ci bitim réew ruq bépp boo xam ne ab sénégalais nga fa mu daal di dem daal di lay expliquer waaye tam wax la moo tax ñu daal di war a falaat président Macky Sall ci ñaareelu mandat donc waxuma la fii ci Touba waaye fépp fu ma yaakaar ni dinaa ko fa war a jàppale ci senegal bu dee jël avion walla saret walla woto bu soobee Cheikh Mountakha dinaa ko def. bi ñu ko laajee lu jëm ci leader politique yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bu sell bi Touba rawatina ci parti bi di APR pëccaxoo gi nga xam ne ci la ñu nekk waaye itam si sañ teg yi moom Mountakha Kane muy fësal ne jamono ji ñëwut ngir diir mbagg kenn waaye dafa ñëw ngir jàpp ci liggéey bi ba mu gën a jóg jëm ca kanam li nga xam ne moom moo ci nekk ni ay njuumte ñu daal di koy jéem a régler man li may doon sama métier mooy ma xool ñoom ñooñu yi nga xam ma seet ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon nekkoon fii yàgg na ci mouvement associatif yi ma toog waxtaan ak acteurs yooyu ñu seet faa yi nga xamante ni moom la président am fii ba basam problème am Touba ma nekk ci ginnaaw ñoo ñu fi nekk jàppale leen ci loolu